situation politique bu mim réew jaaxal ñu bëri collectif bu ëmb soxna ngir sàmm démocratie bu mim réew namm nag ñi méngoo ak état de droit taxaw temb la bile collectif def ngir ñaawlu jafe-jafe yi nga xamante ne day tax reex ñu suuxal li di suñu démocratie. policiers yeeg gendarme yi ñoom ñooy en dehors de tout ñi nga xam ne ñoo war a njëkk respecte la loi. ay ñu dem ba léegi dañoo jaaxle. sëngéem ndax xamatuñu finalement à quelle gendarmerie ou à quelle police ou ak quelle force de défense se fier. collectif des femmes pour la démocratie di ñaawlu lépp loo xamante ne day ndurool rek bëgg-bëgg amal ñetteelu mandat ci mim réewa ba tax soxna yi tàllal loxo njiit réew mi Macky mu delluwaat ci kàddu. nul ne peut faire plus de deux mandats loolu foog naa xale consécutif loolu foog naa ni jàngal nañ ko sax xale yi ci école yi ministre bi nga xam ni moom lañu dénk lépp loo xam ni mooy kiiraay ak kaaraange ci suñu constitution. mu war koo protéger waxoon ci lu leer ni midi tey ñu taxaw ci moom ministre boobu ak xam-xam bi nekk ci moom taxaw am neneen lu mu waxee moom ki nga xam ni moom lañu ñu dénk réew mi wëlbatiku ci ne moom la mu waxoon waxkat nit amul lu dul kàddoom ndaw yi soxna yi société civile naka noonu képp koo xamante ne rek sauvegarde démocratie sénégalaise yitteel na la bëgg nañu nga dooleel leen ci seen xeex bile collectif bi nag ëmb na soxna yu Pastef coalition Mimi 2024 naka noonu yeneen membre yu militant bu l'opposition bile.